jërë ngeen jëf yéen sax safoo di ñuy teewlu ci suñu site bi di Top SN mu mel ne nag kii di Pape Diop njiital bokk gis-gis nag dem na rejoindre li nga xamante ne ni mooy Benno Bokk Yaakaar ngir rek famille libérale bi mën a continuer ngi ba jëm horizon 2035 loolee nag ñëpp doon ko xaar gannaaw bi nga xamante ne nii résultat provisoire yi génnoon na ci Sénat Benno Bokk Yaakaar ak intercoalition Yewwi Wàllu rek pour départager il ki nga xamante ne nii mooy Pape Diop wala kii di Thierno Alassane Sall wala Pape Djibril Fall rek daal di bàyyi li nga te ni mooy poste député régionnaire ko ci loolee nag tey suba mën nañu lire ci li nga xam te ni mooy direct Pikine kii di Pape Diop nag daal dina rejoindre ki nga xam te ni nii mooy Benno Bokk Yaakaar ngir mën a am ngir mën a continuer famille libérale bi ci horizon 2035